ñoo ko wax ci li presse bi bind te presse bi suñ waxee ne ñoom ñoo ko wax dañ koo jële ca lañ wax enquêteurs yi te loolu nag lu jara a lu jar a xool la mm-hmm. lan moo tax léegi Sénégal en tout cas yàgg na fi ah, du léegi soo demee ci enquêteur yow ak moom rek wala yéen ñett rek ñaari enquêteur ak yow nga wax li nga bëgg a wax ñu bind ko ci PV nga xëy suba li nga wax ñu génne la ko ci presse bi jar na laaj te ba mm-hmm. Mm-hmm. mais c'est pas le propre du Sénégal ci yeneen réew sax dafay am. Mhm. Euh, c'est jëruñ ci débat mais li ma intéressé ci li ñu wax mooy dañ wax presse bi. Mhm. ne Amadou Ba ci boppam. Mhm. wax na ne moom dafa partager la lettre là nga xam ne moom la ñu exposer le bulletin de santé de Ousmane Sonko. bi mu ko partagé après mu gis damay cité presse bi de. après mu gis un communiqué du procureur. buy mettre en garde ñu ko def mu daal di koy dindi ci saasa. ndaw soosu di Fatoumata Kane également li presse bind mooy la pratiquement la même chose la wax. Mm. mooy moom it daf koo gis partagé ko. Mm. bi mu ko partagé ñu gis le communiqué du procureur moom it mu gaawantu dindi ko ci saasa. Mm. da nga ciy jàng ñaar. mooy partager ne pas dire que ni ñoom ñoo ko génne. Mm-hmm. c'est important. Mm-hmm. partager ne veut pas dire que ñoom ñoo ko génne damay wax fi plusieurs fois di citer benn journaliste français bu ma mës dégg mu wax. ne moom secret avec les réseaux sociaux mooy il ne partage jamais ce qu'il ne peut pas vérifier nag dafa am ci ñun ñu bari ñoo xam ne lu ñu gis ñoom dañ mën nañ ko partage te d'ailleurs la pour la petite histoire man ci Amadou Ba laa liire muy mettre en garde waa PASTEF mm. naan leen bu leen partager le document là di circuler sur le net. moom ci boppam. ça veut dire quoi que ne bu fekkee ne su fekkee ne. su fekkee ne daf koo partagé bi mu koy partagé xamul woon wala boog yaakaarul woon ne. benn pour poursuite mën na ko cee fekk. encore que su fekkee ne ñoom dañ koo partagé sa feetu man je li ëpp solo nekkul parce que sa feetu Cissé na ko partage Moussa Faye Diop na ko partagé il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui l'ont sur leur page Facebook. Mm franchement yow soo ko gisee c'est parce que am na ko partagé wala déet mm-hmm. gis nga ko. soo ko gisee c'est parce que am na ku ko partagé soit ci WhatsApp am wala ci page Facebook am wala yu demee noonu. Mm-hmm. léegi la question simple qu'on doit se poser mooy su fekkee ne ñoom dañoo partagé rek ñu jàpp leen est-ce que on doit faire le tour des réseaux sociaux WhatsApp Instagram Facebook yëpp képp ku gis ñu partagé ko ñu jàppale yow. Mm-hmm. première pour être juste dañu war a xool su fekkee ne Amadou Ba partage rek la def mhm. moo ko Fatoumata Kane moomu mhm. dañu war a xool daal na léegi nañu dem ci page Facebook yi képp ku ñu gis ne partagé nga ko ñu jël la nañu dem ci statut WhatsApp yi mhm. képp ku ñu gis ne statut nga affaire bi ñu jël la nañu jël ci Instagram képp ku ñu gis ne partagé ko ñu jël la ak groupe WhatsApp yi ak groupe WhatsApp yi très bien bu la yóbboo ci kanam procureur nga wax lu tax nga partagé ko moo tax ma ne le plus important n'est pas de savoir qui a partagé plus important moo doon seet lu tax mu génn ak ku ko génne parce que Pape Sané laa dégg moo ko keroog et ça semble important dafa wax ne ces genre de euh, courrier la kenn du ko envoyé par mail parce que man maa ko laaj ne ko est-ce que mënuñu ko envoyé par mail mu je ne sais mu rëcc wala keneen jot ci ku ci war a jot mu ne ma non je crois ils appellent ça des courriers portés ou quelque chose comme ça je ne si l'expression est mu kenn du ko pa euh, envoyé par courrier électronique c'est-à-dire su ma ko bindee dama koy jox Safiatou Cissé ci loxoom lay dem jox ko ko nga xam ne moom lañ ko destiné donc mbir mi ci loxo loxo lay jaar mm-hmm. est-ce que loxo yi mu jaar mat na fukki loxo yaakaaruma ko est-ce que mën na fukki loxo yaakaaruma donc ce qu'on doit faire à mon avis mhm. je n'apprends pas aux magistrats job parce que ñoo ma gën a xam mais li ma yaakaar mooy dañu war a xool diggante ki ko bind ba mu àgg ca kam ko war a jox diggante boobu nu fi mbir mi def ba génn mhm. est-ce que dañ koo def ci enveloppe enveloppe bi naaw nit ñi for ko ci mbedd mi est-ce que je sais pas moi yaa ngi rey mais est-ce que est-ce que que mais war nañu xam lan moo kan lan moo tax mu génne foofu mhm. beneen bi mooy man j'ai lu Juan Branco j'ai lu mu wax ne yàgg na moom mu xam ne Ousmane Sonko est passé à quelques pas noonu la ko waxe à quelques pas de la mort mais musu ko musuñu ci bëgg a wax parce que par pudeur wuru bëgguñ ci woon wax mais mbir mi àgg na foo xam ne moom il a les te dina ko wane te ni le président de la république le ministre de la justice le procureur ñoom ñëpp xam nañ la situation sanitaire de Ousmane Sonko. Mm-hmm. loolu moo ko wax donc revendiquer ne moom ces document là ci moom la jóge léegi comment ça s'est passé pour que avocat ba ca Paris jot loolu man je crois que loolu la war a gëstu. Mm-hmm. parce que Amadou Ba Maïmouna Kane franchement. franchement euh, Fatoumata Kane franchement respecté naa leen lool mais amuñu maqaamam. Mm-hmm. yegg ci document bu directeur administra directeur général administration pénitentiaire bind mu war a jëm ci ministre de la justice amuñu maaxaama yegg ci jot ci document boo xam ne euh, nu ñu koy waxee euh, euh, colonel ba ca hôpital principal moo ko bind jëmale ko ci directeur administration pénitentiaire amuñu maxaama boobu. d'accord je les aime mais amuñu maxaama boobu. Mm-hmm. donc comme amuñu maaxaama boobu comment ça s'est passé ba ñoom ñu jot ci document boobu. Mm-hmm. loolu la ñu war a gëstu. et je crois que ñi nga xam ne ñoo enquête bi ils vont rendre ce service là au Sénégal gëstu ko. Euh, fay yooyu nga noté ci administration sénégalaise. Euh, mhm. chaque jour ñu koy jooy euh, tey jii peut-être dal na ci ndodd Amadou Ba. Mhm. ak Fatoumata Kane. Mhm. ba tey jii ñu nga sa nungu siin. est-ce que tamit jàpp bi ñuy dem di jàpp di jàpp di jàpp du dem ba waxatuma sax ñoom. acharnement lañ ko tuddee mais est-ce que mhm. du dem ba doon soulèvement populaire te tamit euh, nga yóbbaale ko rek mooy que ni soo à chaque fois bu ñu waxee ne dañuy march wala dañuy def mouvement du ñu aayal leen ko mhm. yàlla nañu ci yàlla musal yàlla bu ñu àgg mukk ci ay soulèvement bëgguma ko ci mim réew mhm. te incha allah yaakaar naa yàlla dinañ ci suturaal mais dama bëgg wax sa feetu que ni li nga xam ne moom lañ jàppee euh, nu mu tudd soxna si euh, Fatoumata Kane ak Amadou Ba encore une fois je me réfère à ce la presse a écrit jële ko ci li nga xam ne ñoom nee na ñoom ñoo ko wax mhm. te ñoom dañu partagé mhm. su ma référé woo ci loolu rek yem ci dama naan ñoom ni leen dal mën na dal n'importe lequel d'entre nous mhm. n'importe lequel ça fait on passe tout notre temps à partager des documents tout notre temps à partager des bi ñuy wax loolu man euh, euh, ci laa gisee ci ci ci gars yi di ñuy partager euh, le procureur ba ca ba ca kaw la communiqué bi mu bind. Mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mhm. fi l' affaire Oscar Sierra du yaa ngi koy fàttaliku. Mhm. Ousmane Sonko document boobu ñu fi yoo xam ne police a ko def tudde ko ci Oscar Sierra xaw ma nu ñu ko tuddee mais facilement mu ju mu ju mu dugg dans dans dans le truc yooyu nag dafa am ñaar yu ñu ci mën a jàngal. mooy soit am na des gens. qui sont au cœur du système et qui peut-être gëm ne système bi ni muy doxee baaxul mhm. ñuy dénoncer mhm. ñooñu la ñuy tuddee les lanceur d'alerte cest à que un lanceur d'alerte mën na ne quelqu'un boo xam ne dafa nekk au cœur d'un système mhm. mën na nekk au cœur d'une administration mën na nekk d'une entreprise ak yooyu yu bari mu gis ne fii yii ñu fiy def jubul jubul mu ne duma ko seetaan dinaa fexe ba nit jot ci loolu mën naa am beneen bi nga xam ne mën naa am mooy ku bëgg a yàq koo xam ne jublu génne gi jubluwu ci defar mais yàq la ci jublu lenn également mën na am mooy li coow luy bari bari mais on doit se poser des questions parce que xel aussi day dafa war di ñaw parfois mm-hmm. mooy suñu pousser l'analyse jusqu'au fond est-ce que mënuñu poser waat yeneen question mooy lan mooy est-ce que le pouvoir ci boppam le pouvoir ci boppam wala boog ñenn ci ñi ne ci pouvoir bi amuñu intérêt génne loolu. génne loolu pour présenter Ousmane Sonko comme quelqu'un boo xam ne même su jàllee l'étape des parrainages yooyu ba nekk candidat à la présidentielle mënul jiite réew parce que santeem nekkatu fa. d'accord. Euh, c'est euh, des questions à se poser. Mhm. ak yeneen ak minutes rek moo ñu moo ñu dese te dese nañ ñaari ñaari ponk. waaye balaa balaa ñuy génn foofu Moustapha mooy laaj bi ma la laaj léegi rek. Mhm. mooy est-ce que par exemple arrestation yi def. mënul mhm. mënul tax euh, peut-être mën naa bañ a wax soulèvement mais est-ce que mënul tax nit ñi fut nit ñi comment dirais-je fippu. xam nga ci démocratie ñaar day am ñaar day am mooy da ngay gis li la naqari. nga génn manifester faj ko soo bëggee manifester faj ko ñu interdire la manifestation boobu parce que manifestation comme bi am keroog. Euh, mm-hmm. vendredi je pense. Euh, fii ci euh, G2 jëm Liberté cinq mm-hmm. mooy ñu ànd ñu autoriser seen manifestation. Mm-hmm. ñu ànd manifester ñu ñoom lii lañ bëgg a naqarlu. loolu mooy li war a am ci démocratie. loolu su amul da ngay jël ñaar risque bi ci njëkk mooy. nit ñi fippu mhm. comme ni nga ko waxee génn dañuy manifester par force mhm. jàmmaarloo day am mhm. te dund dañ ko fi mois de mars dund ko fi juin ak juillet ak yeneen ak yeneen donc du lu bees euh, li xewoon Mbàkke euh, bi fi waa Pastef di manifester ban tëj ci Walfadjri d'ailleurs lu ko indi woon mooy dañu bëgg a meeting ñu ne leen du fi amee ñu ne ñoom it duñ ko nangu mooy indi loolu nga wax sànq. beneen bi nga xam ne ci démocratie day am également mooy nit ñi gis ne ñi ngi di jàpp di tëj di jàpp di tëj di jàpp di ñu ne comme bu ñu génnee manifester ñu jàpp ñu tëj ñu ñu ngi xaar ba bés ñëw ñu faj ko xam nga bés boobu mooy kan mooy le 25 février 2024 jour boobu mooy jour bi nga xam ne moom la ñu jagleel citoyens yi ci démocratie. d'accord jour boobu la ñuy exprimer parce que jour boobu la ñuy voté suñu demee voté mais li nga gis le tous ces sentiments de colère laa ngay gis muy am ci réew mi. Mhm. Euh, njëkk yi ñuy yokk. nit ñi ñuy tëj liberté yi ñuy confisqué. Mhm. ak euh, injustice bi am ci réew bi mais yooyu yëpp dañ koy exprimer ci urne mhm. loolu mooy loolu mooy démocratie. d' accord mhm. euh, tamit euh, cour de justice bu CEDEAO. Mhm. ñu waxtaanee fa euh, jëmee si affaire Ousmane Sonko naka nga gisee procédure bi. alors man dama am lu ma lu ma reeloo parce que démb yàlla xam na ne bi ma ko déggee dama ne woon non dañuy wax rek. Mhm. loolu mu mënta nekk ñu ne agence judiciaire de l' état dafa demander report. pourquoi parce que euh, courant dafay coupé centre ville. Mhm. également internet dafay am ay perturbations. Mhm. bi ma ko déggee ça ma fait rigoler ma ne non c'est pas mais mais effectivement tey bi ma xoolee. et tey eh, euh, Safi. Mhm. gis nga Sénégal seen ndaw yi ku leen comprendre bëgg leen a jiite di nga sonn lool. tey soo xoolee réseaux sociaux yi. ça nous ramène ci li li nga doon wax sànq si Amadou Ba ak euh, Fatoumata Gane soo xoolee réseaux sociaux yi. mm procès bi da da ngay mel ne yow da nga nekk Abuja di ko seetaan parce que lépp lu fa xew gars yi def nañ ko ci réseaux sociaux yi nga koy lire soit tu peux regarder ça par Zoom. Mhm. wala ñu lay defal compte.